asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakatu maa ngi nuyu mbokk jub yëpp di ñëw mbokk taalibe yi. sëñ Xaadim sëñ Muntaxa Mbàkke ndara ngela si Ndakaaru euh, yow nga nekk si njabootuk sëriñ bi ràññee ko ci lool di sëñ Xaadim Cuun moom moo soxna mboose. ñu Xaadim euh, yan kaddu nga ci yëg ak kaddu yi nga xamante ni yaa ngi ko yëkkati jëmale ko ci ci boobule nga waaw moom day jërëjëfati sëriñ Saaliw jërëjëfati sëriñ Saaliw euh, Cheikh Béthio Mame Bamba Thiam yàlla na la xéwalam yokk fa sëñ Saliou mu daxa yàlla fi yàgg waaw moom day yëg nañ ci loo xamante ni muy ak cant cant gu rëy lañ ci yëg ndax ndax sëriñ tubaa sëriñ tubaa moo ñuy si waaw sëriñ Touba moo ñuy gane si fii ci Ndakaaru kon mbokk taalibe yi ñu ngi woo waa Sénégal ñu ngi woo jullit yëpp bàyyi ñu kenn mbur Tijaan Laayeen Xaadar ñëpp ñu teeral ñu sëñ Mountakha ndax loolu kat. moom rek lañ fa se moom képp lañ fi am muy ngan googu nga xamante ni ah moom la suñu alaaji Mbàkke Fay moom lañ jox ndigal li ah mu jiite ko ah ànd koog suñu sang bi sëñ Sall ndigal cuun waaw. nekk euh, euh, lan nga ñu mën a wax par exemple euh, sëñ Béthio na mu daan teeroo sëñ Muntaxa wala na mu daan teewoo xalifa ak ak doxinu sëñ Béthio ci saa su ne bu ñu jibee xew-xew yu toll nii. waaw moom euh, sëriñ Saliou da nga daan jox ndigal mu teeru ay kilifa am na ngan goo xamante ni sëñ Abdou boobu la doon teeru am na ci ngan goo xamante ni si Abdou Khader la doon bennal kon loolee bu ñu demee bu ñu rogalaat di rogalaat ba agsi fii Serigne Mountakha ñëw a ah, ñu jël berne yi te ko ci loxo cantakoon yi ngir ñu war koo togg war koo saytu loolu dañoo delloo buum ca boy boy waaw loolu taarix la daa delluwaat loolu dañuy dañ ciy santaat Serigne Saliou te xam ni ndigal la ko wóor ci ndigal loolu ñu sax ba tey jëmmi Serigne Mountakha di ñëw Ndakaaru ñun ñu yor wàllu togg yi organisation bi ah loolu ak cant loolu loolu ndigal lekk képp moo ñu ko may ndigal moo ñu may loolu waaw ñu ngi ciy woo Sénégal gépp nag waaw lépp mate na ko waaw bernde yi mate na ko Ndakaaru gépp ay waaj la samp nañ soppi waaj cantankoon yaa ngi koy waaj mbooloo maa ngi koy waaj lépp doy na waaw. sëñ Xaadim ñu gis rek par exemple ku xool tey cant samedi mer moo sa yaram daw sa xool tooy nga gis maanaam yokkute yi lim lay def te saas na yow nga taxaw maanaam daan wax ndigal mooy dëgg te lim lay def tey ji waaw ndigal mooy dëgg moom daam loo xamante ne boo dee ko jàpp boo xoolee rek. jarul sax ngay wax nag da ngay xam ni mbirum sëñ Tuubaa la day dox mbirum sëñ Tuubaa moom saxaar la da ngay dugg mu yóbbaale la soo doxee nag mu bala waaye du teg àgg fuñ jëm saxaar gaay moom mu nga daw moom du taxaw fii ñu bii nga xamante ni suñu waajur wee ko sant sëriñ Saliou sëriñ Saliou jox ko ndigal mu daan sant cant googee moom la ñuy wéyale ba keroog ñu koy fekk yàlla yéex waaye cant gi du dakk mukk du mos dakk ah, waaw. Baye Fallou Serigne Saliou loolu lu ma Baye Fallou. Ah, waaw Baye Fallou Serigne Saliou ah, waaw Baye Fall la waaw man daal la yoon wi tey ma wax la la may Baye Fall gis nga yàlla daa wax ci alxuraan am na ñoo xamante ne bu ñàkk amee dañuy joxe bekkoor ba amee dañuy joxe lu am dañuy joxe boole ko xoolee ci alxuraan loolu may Baye yi mu ñàkk dañuy joxe amul dëkk bi daa kale dañuy joxe ñoom ci joxe lañu xam maam Cheikh Rahane Fall bu dëkk bi gën metti métti bu jamono si Mourou Moustapha fa boobu la dëkk bi gënoon a métti boobu la dàq joxe di waaw suñu sang ba sëñ Béthio jàngal lañu ñun jot dàggoo dëkk bu metti xamuñu ko muy métti dañuy jëf muy naqare dañuy jëf waaw fuñ toll dañuy jëf ay cantaakoon lañu cantaakoon moo xamul dëkk bu metti rek déedéet ñun day sat Serigne Saliou mu ñu dolli waaw. jërëjëf Thioune jërëjëf ak sa sang bi lay wax ci leeral TV ak Tawfekh Production. waaw leeral TV day xanaa moom di yokk leer rek leer yi gën a leer gën a am ndam gën a yokkute waaye loolu la sam xel dal ndax sëñ Béthio la ko ñaanaloon sëñ Béthio moo la ñaanaloon ni foo nekk sàllaaw dana mel ne jant te dalaa dogul Serigne Saliou moo ne ko. loo dogu ba fekk la ci dogul na la foo nekk mu dox waaw kon na ngeen xam ni la TV moom moom day dox ba faw awaw yàgg fi yàgg te